sax na bi nga xam ne yeneen jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew gis nañ loolu mu doy leen ba tax ñu am fit ñemeñ pour mun a ñëw fii si réew mi dellusiwaat fi nga xam ne fii lañ dëkk fii lañ jógee ñëw tam bugg a waxtaan ak yéen booloo ak yéen wane ñoom it seen cofeel ak seen bugeel ak yëgal leen ci lan la ñoo yëngu fi nga xam ne mooy France fi ñu nekk kon loolu foog naa lu am solo la. ñii kenn mënut leen a gërëm kenn amut seen fay comme nu ko bu waxee rek am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci biir réewi àddina si. ñoo xam ne tey yéen li ngeen def defuñ ko ndaxte xëj na toogin bañ toogee ci réew moomu noonu nekkul toogin boo xam ne toogin bu rafet la wala xëj na li ñoo wane ci réew moomu noonu xëj na nekkul loo xam ne nii doylu naa ba nga xam ne ñemeñ na ñoo def li ngeen def parce que dañ ne mbooloo mooy doole li ngeen booloo nii def net li ñëw wane seen buggeel si président Jammeh loolu foog naa lu am solo la seen fee kenn amu ko yàlla moo ko am comme nu ko waxkat yi waxee rek euh, xëj na dinañ bugga pour dégg ci yeen parce que dégg ci yeen am sen experience am fi ngeen jaar ak lana lan ngeen am foog naa loolu lu am solo biko bi ñeneen ñi dinañ ci mëna jàngé su boba ñeneen ñi nga xam tam xëy na ñu ngi tok feneen di am yeneen yo xam ñu ko yek wala di am yeneen yo xam ne xëy na ñu ngi wax yeen bo leen waxé dinañ xam ne na wax yoyu waxi ñaaka fayda la wala wax yoyu wax la wax yo xam amul fen fuñ ko wër amul fen fuñ taxaw parce que yeen risque bo reey ngeen jël yi a ci biir tuba bi te xam ngeen ne président Jammeh moom dëggaam ak waxam bàyyiwu ci kenn moom li mu gis mooy jëm kanami africa ak li nga xam ne mooy boole nit ñi def leen benn moom façon njiit boobu la. so su fekkee ne yéen nag definet li jógee ngeen ba ci biir réew tubaab yi ñëw pour wane seen taxawaay. kon loolu noonu lu am solo la. so ñu ngi ñaan rek di leen gërëm di leen santa di pare pour déglu seen waxtaan. jërëjëf jërëjëf Pierre wax bi leer na aja Yama Sidibé yow yaay président yi Gambia Women Federation Paris chapter lan a tax kenn foom fédération bi. kon Seydi jërëjëf sa laajte boobu ma ko laajtee dinaa dina ma neex trop pour ma tontu ko waaw waaye maa ngi nuyoo di nuyoo di julli si yonenta bi yàlla ak yonenta bi di gërëm suma ñaari waajur yi di gërëm suñu jëkkër yi nga xam ne ñooy sababu bi ñu mayloo fit bi ñu mun a ñëw fii. di leen gërëm bu baax a baax xam ne ay jëkkëri jàmbaar lañ yore ñu ngee gërëm nag suñ président bi di alxaaji docteur Yahya AJJ Jammeh ak soxnaam ne ko ak soxnaam Zeynab ñu ngi ko nuyu bu baax a baax ak suñ mama Adja Aysatu Njaay sii buñ si génnee nag sii di dinaa kontaan tamit pour gërëm Women's Federation bi nga xam ne ñooy sababu bi tey ñu ñëw fii ah di nuyoo ay aji ay da Aysatu Fay ak aji Mata Mata ndax tey soo gisee fédération bii foom seen sababu la ñëw nañ France fekk ñu fa si ñaari at ci gannaaw indil ñu xéewal bii wan ñu ne fédération lañ bëggoon pour ñu taxawal ko France yàlla def bi biñ ko waxee ñaari at ñu ngi ci kawam benn ren januwaari si la ko yaara mutali kon donc ñu leen see gërëm ndax lu nekk rek dafa am sababu aji mata mata ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax yaa say fédération bi yëpp buñ génnee nag ci loolu am Seydi li ma laaj léegi dinaa la tontu ñun fédération bi dañ si am jom taxawal ko ndax Gambian Women si nekk Paris bari nañ alhamdulilahi rabil alamina bañ jógee nag ne dañ koo taxawal dañ ko taxawal pour def ko benn ombrera nekka benn yàgg nañ France man aju yaama si dibi muy wax ni am naa tati five years Paris kon kenn dot du ma laajati fanaay Europe ñu jur fa ay doom suñ doom yi am fa jikkar am fa ay jabar ñu taxawal lii ñu ñëpp ñu mobilise dugga nañ nag ci àll bi dugga bee province yi France di ko wër pour am indi Gambians yi pour ñu ñëw ñu ndaxawal ko nekk benn sababu boobu yëpp itam li ñu ko gën a dëgërloo itam ñu ngi cee gërëm suñu embassy Alhaji Ousmane Badji liggéey bi yëpp mu gën a taxaw Ousmane Badji amuñ sa fay dinaa ko wax ba àdduna yëpp ko tey ñun liñ gis fii Gambia di sant Gambian yi bu baax a baax a baax a baax a baax fédération bi dañ ko taxawal pour buñ amee jàmm ñu indi ko Gambia ndax ñun Gambia la ñoon ndamoo Gambia lañ am amuñ fenn fu dul Gambia bugga nañ nag suñ association bii at di moment fi ñu taxaw ni dañ ko register France pour tubaab yi yépp yëg nañ ne dañ am association Women Federation Gambia tiituñ si ragaluñ si parce que soo déggee ne dangaa ragal dafa fekka ci li nga nekk du dëgg ñun ci dëgg gu set wéj lañ nekk dañ ko register Paris te registration boobu ñu en France fu nekk ci biir France dinañ ko fa yóbbu te dinañ xam ne li ñoo liñ taxawal lu am la te dafa dafa nekk dëgg si ñu lépp nag loo xam ne ñu ngi koo mbébét si biir réew mi yal nañu ko yàlla defal indil ñu jàmm ci suñ dëkk bi fii lii tax ngeen ngeen ooñu ñu ñëw toog fii si télé bi man dinaa ci kontaan trop te defe naa ne ñi ma àndal ñëpp kontaan nañ ci ndax ñu ne ñëw xoolal sa boppa gisal sa boppa dara daaxu ko man Gambia as man yi aji yaama siribe dinaa ko wax ci kaw te ñëpp di ko Gambia jaral na ma lu nekk te jaral na ko ñëpp ndax Gambia gii ku toog Europe ne gàmbiya lii ak lii dafa fekk mënuloo dem ku mënul dem da nga bañ a mun a dem dem Gambia daal xam naa ne ñun bi ñëwee ba tey maa ko wax suñ gars yi ma leen lii day Gambia day moom alhamdulilah ndeewu añ reer Europe sax léegi manqué na fa dinaa ko wax nag waa Europe dinañ ko dégg ku ne nag nga mun a wax lu la ne waaye manqué na fa Europe la woon Europe ak tey du benn fii nag ñun ba ñëwee ba tey ndéewu añ reer ñu ngi koo def dëkk bi am na freedom dëkk bi mun ngaa teel sa saak teg ko nga génn dem sa yoon kenn du ko di ko jël pour wane exemple rek man barka démb dama amoon bagage moo amee woon ci suma benn moto xarit ma jox ko ko ne ko yóbbu ko mu ñëw ba ci géej ci bunta bi di génn di dem booy bi oyaat ko ne ko foo jëlee bagage bii mu ne ko fële mu ne ko nañ dem bi foofu ma fay na laaw ndax dëgg laa du dëgg ba ma ko gisee ma ne ko lii moo am Gambie mu ne waaw ma ne ko kon man tëjatuma suma paranteer yi <laughs> alxaaji Yaya nag ñun ñu ngi koo gërëm gis nañ liggéey bu mag bi mu am li mu def ci biir réew mi man maa ngi judoo jooj town waa ngi makaati laa tey soo demee jooj town gis suñ pong bi rek jaratul wedi tey Gambia George Town Banjul George Town ñu ngi ko dox three hours nga egg a George Town du si tali bi courant yaa ngee dox tàngaay bi ñu daan laajte Gambia courant yi gisatuñ ko gisatuñ fi loo xam ne lu ñu jaaxal la ci biir réew mi pour wan suñ bokk yi nekk Europe Paris France ne Gambia gii ñëw leen ngeen ñëw xool dëkk bi toog di déglu amalut kenn njëriñ soo ñëwee di nga gisal sa boppa soo gisalee sa boppa soo demee di nga dem wax ñu ne gisuñ fi dara loo xam ne lu jafe la si biir dëkk bi jaama ak salaam nit ñi am nañ ñaatu suñ dëkk baa ngi am sécurité ku fi tëdda yaa ngee nelaw ku toog yaa ngee sant yàlla yaa ngee lekk yaa ngee naan suñ yoon yaa ngi baax suñ président bi daal ñun amuñ dara luñ ko mun a lu dul gàcce ngaalaama jaame jiiral ko ñu ngi ci sa gannaaw ñu ngi ci li ñoo wax ci français la mooy yaay alxaaji yaay jaame ñu ngi ci sa gannaaw ba faw ba faw ba mbootaay mi léegi Asa Koyta lan lañ mun a wax Yaya Jammeh génnaloon nañ ko wéy démba mm-hmm. dama bëgg rek nga may ma ci wax ji nous avec Yaya jusqu'à la mort Yaya Yaya Yaya jusqu'à la mort Yaya avec Yaya jusqu'à la mort Yaya avec Yaya jusqu'à la mort avec Yaya jusqu'à la mort, Yaya. Avec Yaya jusqu'à la mort, Yaya. Avec Yaya jusqu'à la mort, Yaya. Avec Yaya jusqu'à la mort. Ah, um, right. oh, oh. Um, ah, ah, Adiyama Sidibe euh, jërëjëf sa sa kaddu rafet na defe naa ne yéen lu tax ngeen ak mébét bi ba pare ñëw à ce groupe mooy ne président Jammeh ku gis weddi bokkut si lu ñëw wax si biti ak lu ne si biir du benn développement bi wax nga mbiri sécurité wax nga mbiri yoon yi wax nga leneen ak leneen yéen naka ngeen gisee développement training APRC bi APRC bi développement bi ñun biñ egsee fii ah, dégg la Women Federation ñoo tax ñu ñëw waaye dafa fekkoon nit ne APRC dafa yàgg a ci suñu xol yi ndax man aji yaama si di bi muy wax nii since 1994 ba 2013 maa ngi ci gannaaw yaaya laa yaaya jaam ak ñëpp bu ñëwee France ñun ñoo moom la bu fa nekkut tam lu nekk ci embassy bi ñun jigéen ñii ñun ñoo moom la ba tey fédération bi am yàlla def fédération bi bañ koo ut France